fexe di xëccanteeg moom gis nga boo demee ca xayba ca dossier ba ñuy fale xut bu zamaan yi am na ñetti phase yu ca ne gis nga ñetti faas yi ci ne mën nañ ni ñett yépp ñoo yam àtte ndax benn bu ca nekk ci sa bakkan lay del ñetti phase laa wax yu jële mais ñooy am àtte ndax bu ci ne sa bakkan lay del rey bi lañ la cay wax mooy dañ lay wax gis nga ñett yi sa bakkan mën na la ko def lu fekkee dañ la bëgg def seen xut bu ñu ni ñett sa bakkan mën na la ko defloo waaye bu la ko defloo benn yoon mooy sa premier avertissement bu la ko defloo waatee mooy sa deuxième avertissement bu la ko defloo waatee mooy sa troisième et dernier avertissement ñu raye la ci list bi dootoo bokk ci concours bi waaw te pare wuñu di suñ la waxee loolu ba noppi nag ñu fexe ba ñett yañ la tere ñu woo nawaa mis yi ñu indi ko ci yow di di la ci xiir ngay xeex ak sa bakkan di xeex ak sa bakkan ba nekk suuf yaay ñu soogee xam ni mucc nga ñu daal di lay mën moo tax xutbu zamaan yi li ñuy doon trois cent vingt cinq yëpp seen lim ca xëy mosuloo ci gis kenn koo xam ni ci ñoom bakkanam daf ko gañe amul parce que bu la sa bakkan gañee rek génn nañ la ci liste bi dootoo bokk ci concours waaw seetal duñ la bàyyi ak sa bopp te nawaa misi yàlla dogal na ci ñoom seen pouvoir kenn xamul na mu toll waaw amul ci organisme doomu aadama benn organ de sens bu ñu mënul contrôler ci moom te efficacité bi ñu am buñ koy contrôler kooku mënoo gis sax technologie àgg fa waaw nu ni contrôler nu xiir ko ci nàngam bu la ca xiiree rek nu ni benn nu xiirati la ca ñu ni ñaar nu xiirata ca ñu ni ñett et dernier avertissement raye la ca liste ba looloo tax imam Xazali mu soon wax ni xanaa ñu ñëw tànn seen rox wax ci ñoom ni seen destin mooy nekk xutbu zaman mu ni biñ leen di tànn ca lañu ñu commencé concours wala concours ba jiitu na tànneef laaj la boo xam ni boo déggul maarifa noo ko tontu waaw imaam wax ni ñu nu tànn seen rox wax ni seen destin mooy nekk xutbu zaman dañu leen tànn ba noppi nuy soogay def concours wala concours ba jiitu nu leen di soogay daan ndax mënul woon nangu ku dem bay compétir ñu rocc la ca liste waaye ci dégg-dégg lam la cay jàngal lam lay jàngal ci dégg-dégg mooy laata nu leen di tànn seen rox foofu lañu seetoon kenn ku nekk ak la nga àttan def ci àdduna ba nag waaw moo tax mu ñu ñu recalé moo tax mu am ñu ñu recalé waaw waaw te kenn ku ci nekk nag kenn ku ca nekk yàlla def na ci yow yitte bu tolloo mu mayoon la capacité wu nga mën domine sa bakkan waaye ñi muy yabal ñi muy yabal lu la ciy puus ñooñu ñooy sa natt moo tax léeg-léeg nga dégg koy zikr dem wax ni nan ko ñaanal nga ni lu tax mu ni parce que heure bu may zikr rek sama xel mi dafay xalaat nangam nangam sama xel mi day dem ak di ñëw ma ni waaw parce que xel mi mooy sa nattu da ngay fexe di xëccanteeg moom ba du la sànk xanaa mu delloo la ci waaw loolu tax mag ñi ñoom dañu amoon garabam ñoom waaw ñoom dañu amoon saafaraam waaw te saafara ba mooy bu leen seen xel bëggee sànk rek ñu dal di dem hôpital daal di seeti maladie waaw dugg nuyu malaat bi nuyu malaat bi nuyu malaat bi xam nga luñ ci jublu dañuy xool ku leen ëpp kàttan fuuf mi ngi tëdd ñu ngi ko sampal seeram fu mu ne mënatul sax yëngu ñu dellu si ragalaat tuuti bu leen ci bëggee delloowaat rek ñu dem ca bàmmeel yi daal di xool ba gis fa boroom alal ñu déglu ndax dinoon dégg mu yëngu wala ay weccit di yëngu ci bàmmeelam duñ ca dégg daal ñu dem ba xool boroom tuur ñu seet ndax dana am ku fa toog di ko tudd du ñu gis kenn ñu seet ku mbooloo daan topp ñu xool gis sa bàmmeel kenn nekku ci ñu dellu si gën a yokk seen ragal yàlla yooyu nag ci jamono yooyu nag ci jamono boo gisee échec